rencontré représentant commerçants yi ñu ñaanoon euh, né nañ leen may ba compte situation bi nga xamné bi mom la nga xam la réew dund ñu may leen encore quelques jours c'est vrai que amna ño xamné ñu commencé woon nañ dem euh, négociation yi metti woon na de l'urbanisme rendre na compte président de la république préfet également rendre nañu compte ñu wax président de la république li nga xamné li mom lañu teunk ak mom la euh, commerçant yi sakku ci ci loolu ci lañu président wax ne nañ euh, ñew may leen loolu parce que amna vraiment yek yek ci li nga xamné li peut-être mo dal Sénégal de façon générale ci activité yi mën nañu leen nangul ñu may leen ba après tabaski donc motax ma ñew def nañ le tour bu ñu tabaski ci gannaaw ëllëg donc la euh, dem képp koo xam ne kii da nga fay da nga nar a dem tabaski te gannaaw ëllëg du la fekk ndakaaru booy dem yóbbul say bagage képp koo xam ne kii nag mën ngaa dem tabaski ñëw jël say bagage benn fan la la may le lendemain neex yàlla dañu jël disposition yi pour euh, dégager fi cantine yi fi nekk donc yaakaar naa ne wax jii ñëpp dégg nañ ko ñoom it aussi comprendre nañ ko donc nañ ci lu góorgóorlu naa li ma leen di ñaan aussi mooy fii ak booba lépp luy seen formalité yi nu war a def pour di wut électricité pour euh, dem fi nga xam ne fii fa lañ leen nekk muy bërëbu négandiku lay doon parce que marché bi buñ ko tabaxé yeen lañ ko tabaxal donc am nañ yaakaar né aussi comme ni ngeen ko ñaané ak ministre bi euh da ngeen ci gissé gisewaat ak mom ci yeneen jotaay pour que ngeen xol éventuellement yeen condition ngeen fi dellusiwaatee. ba ngay wax tay ji peut être que duñu pré duñ dindi cantine comme voilà dana leen wax ñu dana leen wax né euh, président comprendre na situation commerçant yi jox nañu ndigal ñew nañu wax leen wax ñom ñu replier ñu may leen ñu liggéey donc ba ba tax tabaski marché.